tabarakallah solo bis bi eh, ñaar ñoo fi daje mooy dama am daara ji dafa am benn jigéen bu ñuy wax Kumba Diop ndeysaan muy jàpp ci daara ji ba xëy moo Pa Moussa ma bàyyee daara ji ñu am décision ni daal xat na dañ ko war a yokk di ci waxtaan ba xalaat ni dañ fi war a tabax ginnaaw institut xew léegi ma leen ah institut ci biir daare ji ñu ni waaw waa daare ji ñoo bëgg a juddul institut ci biir daare ji tabax fi institut moo xam ni lii am ci institut yëpp def cee am internat lay doon bu ñu fexe ba fi taalibe yi dëkk mucc ayib ñu mu am infirmerie am seen cuisine bopp ñu fexe ba classe yi ginnaaw classe yi nga xam ni c'est pour mémoriser le Coran xale yi li formation secondaire bi ñu mën leen ko fa defal ba xalaat nañu sax defaale ci euh, classe yoo xam ni yi

te dañuy jàppale sénégalais yëpp rawatina daara yi boo ma joxee autorisation ma ne ko weesu naa jox la ci autorisation dama la ciy sollicité yàlla dogal ñu am agence bu bees Mbour ñu jox Serigne Babacar Ndiaye yor ko mu ànd ak moom fii ñëw bi ñu waxtaanee ba ñu décidé ni dinañu fi indi seen ndimbal jox ko waa daara ji ma ne leen gise leen ak Kumba ak Pape Moussa ndax man nag je suis ainsi ma délégué nit dara dama koy bàyyeek moom ci la ñu coordonné ñoom ñaar ñoom ñetti ñooñu ñu coordonné ba yëg ni euh, dinañu man bisu tey bii Nous xam ne ci la ñuy indi don bi ñu nga ci la indi man ci poser première pierre au institut ci la ñu toll tey ñu bay poser première pierre bi it dinañu fexe ba wut ay médecin yu defal consultation gratuite xale yi ko defee ñi ci euh, fekk sax waa daara ji am nañu euh, am nañu soutien bu leen di soutenir ci cadre boobu mooy waa euh, sentinelle ñoo gàddu santé xale yi ma xanaa bu ñu ñëwee ñeneen ñi profité ci mais xale yi ñoom alhamdulilahi rabbil alamin bu ko defee journée tey bi dafa xat nag ajjuma la dañuy xaar directeur bu LONASE national ànd ak directeur départemental bi ñu ànd ak préfet ñëw ñu dem poser première pierre bi xam naa bu julli jote juma jaa ngi fi ñu julli continuer seen liggéey yooyu xam naa man dinañ ma jéggal ndax dama am dëj boo xam ne bii maa leen ni nañu ko téye ba juma weesu ndax gan yi may xaar tey waaye alakulin bis la boo xam ni dañ ci war a door dama leen waxoon nag biñ ko commencé ma bàyyi leen ni leen yëgaluma ko sama benn kilifa bari na ay kilifa man leen yëgaluma ko ci kenn nag ndax seen engagement bopp la dinaa leen ci accompagner nag jàppale leen ci bis bu ngeen demee ba pare ko nag ma door dem samay kilifa ni leen njaboot gi ngeen ma dénkoon kat na nañu ba def nañu lii ca daara ja ñoom ñu ñëw inauguré se ko incha allah mais ginnaaw àggaguñu foofa nag ma leen yéen la seen engagement yéen ndongo yi ndax man li ma sama fa engage won mooy dekkalal daara yi Amadou Wade bu mu fay looloo ma jëlee mbuur ma ñëw fii euh, xam naa ñu mën a def institut bi ci biir daara ji te du tax daara ji xat di yëgle ni sama vision bi ma amoon ci ni daara ji xajul kër ji Amadou ba tax ma toxu fii xam naa li ci jëkk li ciy feeñ mooy lii ñu mën a dem ba ñu jóge ci daara ji xalaatal seen bopp tabax institut ci daara ji te du wàññi ci di don daara ji dara ndax boo ñëwee fekk demuñu fañ koy teg li ngay gis yi yëpp bokk ci te am nañu espace bu ma leen jox ne leen tabax leen ko fii mu dundal seen daara côté moderne bi continuer mais côté bi classique ëmb ko ndax xam-xam ña toogoon ak yonent bi ñoom la ko yàlla dik fii ci Sénégal it xam-xam ñi fi toog ak mag ñi xam diine ji ñi fi toog mag ñi la ko yàlla dig boo demee gën nit mën nga fa amee diplôme mën nga fa amee lu ne mais xam gi am intimité ak le Coran ba ci intimité boobu tax mu lay révéler loo xam ni ñi dul intime am un intime toujours révèle à son intime lu ñu ci des xamul dañuy essayer fii fexe ba xale yi am intimité ak les livres téere yi mag ñi ñu am ñoom intimité alquran ñu am moom intimité ba livre yi di leen révéler li ñu denc ci ñoom te duñ ko révéler ki rambu ci kaw rek amul ak ñoom intimité ñaar yooyu la ñu bëgg mu ànd fii yàlla na yàlla jàppale moo tax daara ji tey euh,

te le Coran la waxee ni laysu sawaan min ahlil kitabi ummatun qaima yalla mo len tag mo ni ils ne sont pas pareils de parmi les gens du livre il y a une catégorie qui sont droits motun qaima yatluuna kitaaballahi ana allayli wa hum yasjudun qualité ya mu mooy qualité yi ñuy tàggantee ñun muy yuminuuna billahi dañuy gëm yàlla wa bil yawmil axiri gëm alaxira wa yaamuruuna bil maarufi yiw rek la digle wa yanhawna anil munkari lu ñaaw lu ñu gis dañ koy tere yàlla nee na wa ulaika ñooñu mina salihine ci ñi yew ñi la ñu bokk yàllaa ko wax ci alquran donc euh, vouloir le renier cette sainteté là complètement ñàkk xam yàlla la moo tax bu ñu ñëwee seen journée bi bu tolloog di it bisu àjjuma ñu am chance muy feet ci administration ci la ko xale yi jàppe ndax xam nañ ni liy des ci diggante bi day xat ndax ñu ngi ci gàmmu yi dañuy te yàlla def ñu ci jox liggéey dañ caa war a dem liggéey ñu leen kon jël leen bii rek ñu ci dajee ñaan yàlla ñu teg premier pierre bi gën a sollicité waat ñi ñu indil aide yi ci ñu gën a participer ndax euh, la fondation indil nañu aide yoo xam ni yi réellement c'est une forte participation. Je ne me citer mais en euh, riz, il y a 3 tonnes de riz. Il y a 300 kilos de sucre. Il y a 60 grandes nattes. Nattes, il 3, 3 plis. Il y a 60. Il y a 30 kilos de tomates.

وعليكم السلام مرحبا كان الى دار directeur général nee na ginnaaw bi mu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci seydina muhammad alayhi salaam moo ngi nuyu nag mbokk yi fi teew yépp nee na nuyoo bi nag mi ngi ci jiital gi nga xam ne mooy xalifa bi di Serigne Cheikh Tidiane Wade neena société bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk te yàlla na yàgg dafa am ci anam boo xam ne moom la ñuy doxale neena at mu jot njaboot gi yépp dañ leen di dajale ci benn bërëb ñuy saafonte di waxtaan nekk benn loolu nag bu amee day xam day tax rek dëkk boo dem nit ñi nekk benn famille bi nekk benn loterie nationale sénégalaise noonu lay doxale ci at yi nga xam ne yàlla subhaanahu taal taala moom la ko dénkee kër gi ñu rafetlu ko bu baax a baax a baax at mu ne dëkk bu ñu dem danañu dimbali néew di doole yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ndëkk bi def na ko fu ne nag macha allah def na ko Thiès def na ko Tamba def nañ ko Louga def nañ ko fépp foo xam ne daal olympiade organisé dañ ko fa bu ñu ñëwee dinañuy am suñuy teraanga yoo xam ne ci ndigalam moom la ñuy jébbal askan ba fa ne. léegi nag dama ni daaw ci tey defoon nañ ko fii ci Mbour xare gi ñu def nii nag du guléet de daaw def nañ ko def nañ ko fi nga xam ne moom mooy pépinière bi ak ñi nga xam ne daal mooy structure yi nga xam ne war nañoo mën a jokkoo ñoom pour dimbali leen mënuñu leen a lim nag ñu baree bare leen tubarkàlla waaye ren jii yàlla dafa dogal ñu tànn daara ji nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane moo ko jiite. lépp loo xam ne daal indi luñ ko fi mi nga aji ci lu toll ne ay ceeb ay basan ay satala ay lépp loo xam ne daal ay denrée la ni ko jox soxna Aminata Dieng madame que mu indi ko ci ndigalam mu xam ne nag lépp loo xam ne daal daara dina ko soxla moom directeur général Amadou Kane Samba Kane yaakaar na ne xalaat na ne bu ko indee da ci am mbégte mu indi ko ndaxte nag xam nañ ne daara yombul ci condition yu metti li ngeen ngi yoree xale yi li nga xam ne mooy yaru xale defar xale loolu day ci dëgg-dëgg boo dee seet tamit état moo war a dox loolu waaye nag war ngeen xam ne état moom mun na def lépp wax ngeen dëgg sax état mi ngi def effort ñu ngi dimbali daara yi waaye nag ah lépp du mën a doy du ñu mën a matale lépp kon nag moom li nga xam ne moom la ko président de la république dénk mu dugg ci mu nekk loterie nationale sénégalaise wàllu social nekk ci xam-xamam ak xelam daf koo may mu ciy bay waaram lii nag du guleet ndaxte sociale du ci événement yi rek la koy LONASE di def de noonu nag loolu ci sunu mission la Lonase moom social dafa bokk ci doxalinam. xëy na kay bi yoon dañoo am jot rek xaw koo fësal nii waaye lii lu yàgg nag suñu doxalin moom Ahmadou Samba loolu lay doxal waaye na leen bér ne saa yu ngeen ko soxlaa ci anam bu doxe nii na ngeen ko ko yëgal rek bu ci yàlla àndee lépp lu mu ci man moom dina ko ci def waaye tey nag mbir mi am na yokkute parce que daara ji ren am na daara def nag waaye bi yokk na ci leneen teg na ci benn chèque li nga xam ne def nañ ko ci lépp mooy social bi ñu wax mooy ceeb beeg basan yeeg matelas lépp jël na chèque bu million teg ko ci jërëjëf ñëpp waaw nee na nag lii mu def day ah moom day xeeb na ko lool ndaxte su ñuy def Sénégal dafa yaatu de fépp loo xam fépp foo xam ne xalaata ma nga fa te loxo ma nga koy jéem rek su ñuy def bari na daal loola tax mu def lu mel nii moom nee na surtout nag ci daara parce que moom daa xam luy daara bu sañoon daal anam boo xam ne daaraa ngi yëngu mu def ci lu kawe seen njort ci anam bu ne. nee nag daara moom fondation formation bu wér la parce que daara mooy tabax xale ëllëg te ëllëg mooy nekk njariñu réew mi kon daal lépp lu muy def jëmale ko daara da yàkkamti lool kontaan parce que moom nitu diine la ndongal daara la xam nga luy daara waaye daal bu ginnaaw loolu bu ginnaaw bi mu wéyee ñoo ngi leen di ñaan yéen ñi nga xam ne yéen a fette woo ñaan ngeen ñaanal leen lu ñu man ren yal nañu man lu ko ëpp déwén ci kàttanu yàlla ñaanal gouvernement bi ñaanal président de la république mu am jàmm parce que bu amee jàmm ñëpp am jàmm nee na daal fa lay tënke kàddu yi mi ngi leen di gërëm tey la àjjuma te waxtu bi dafa xat fi war a dem yépp dafa bari ñoo leen di bu baax di leen gërëm wasalaatu wasalaamu rasulillah Seyid Ahmed yaag délégation bi nga àndal madame Ka yaag jigéen ñi ngeen àndal ci délégation bi góor ñeeg jigéen ñi mag ak ndaw Pape Khalifa Serigne Babacar euh, Pape Mouhamadou Kébé ñu ngi leen di jaajëfal di leen jaajëfal ci turu daara ji di leen jaajëfal ci turu yaayi daara ji di leen jaajëfal ci turu ñiy bàjjani daara ji ak jigéen ñi daara ji di sant yàlla nag di wax alhamdulillahi rabbil alamin di leen wax mbégte mi daara ji am ci seen participation bi ngeen di xeeb te mu rëy ci ñun lool lool lool yitte ji rekk madame kay yitte ji mu am ci mbir mi départ na bu départee mu woote Cheikh Tidiane mbir maa ngi ci yoon wi ñi seeni ñi dox sunu digganteeg yéen nga xam ni ñoo war indi matériel bi jokkoo gi ñuy jokkook ñun ngir bañ lenn tardé ci mbir mi ñëw di loo xam ni alhamdulillahi rabbil alamin daara ji daf ko soxlawoo di sant yàlla di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla tawfiix ak taysir yal na yàlla defal leen tawfiix ak taysiir ci seeni mbir yépp tawfiix ak taysiir bu la ko yàlla defalee moo lay orienteel boppam booy dox ci biir orientation bi moo lay guideel boppam boo naree trébucher moo lay redresseel boppam boo naree am incapacité moo lay renforcer boppam yal na leen ko yàlla defal kontaan nañu lool ci yëg ni daara ji moo fekk ci daara ji muy lu visible humilité bi tabaarakallaahu fonk basang ndax basang yow julli nga ci xam xam naa ko maani nañu tàllal basang gi mu ay dàllam ma ni ko déet xanaa gisuloo man sax dama sol sama yos mu ni baax na ma ni kon de mbokk daara laa am yal na yàlla jàppale la Ahmad yal na yàlla jàppale la yàgg sa agence lépp muy agence boo xam ni ma ku ma xam-xam ni fu sama waay bokk rekk nekk rek ca laa nekk màkka man dong lañ fay gis ma sol tis seen t-shirt yi non non si t-shirt yi la naa lay sol yaa ma ay dëpp ko mën leen dëppuma ko nii laa koy sole ndax mag Pape Kébé ñoo ànd ci ànd dem Makka te foofu t-shirt dafa neex mu indi t-shirt yi mag balay ci t-shirt yii la sol foo ñu gis ci biir Makka waaw ndax xam naa ni agence la bu état bi moom euh, dafa euh, ignorance ay waral yenn susceptibilité te je ne suis pas un ignorant man xam naa ni yàlla dogal muy agence bu état bi créé ngir bëgg mbir mi tegu ci yoon mu bañ a nekk pagaay ku nekk ni dangay organise mu fexe ba jaarale ko yoon ñi ko gëm di ci juillet la ñu ca gëm di ko ko ko jot te muy lu lu lu lu leen kenn dul nax waaye ginnaaw am na ñuy bénéfice bénéfice yi Sénégal gépp a ko bokk damay wax gaa yi ni ñun waa daara nag xam nga bu ñu nee waa LONASE ñëw il faut gars yi wax waa LONASE man leen ku ko bañ bul dox ci tali yi bul dem hôpital bul dem kii ndax solde yi gars yi jot sax yenn saa yi mu ñàkk duñu ko am fu ñu ko fay ko waa LONASE leen koy jox réalité ou kon yal na yàlla jàppale leen ci li ngeen di liggéey te yiw wii ngeen koy delloo yal na leen ko yàlla fay lama taxal fasaadu fal xalaalu ma asluhu arifahu rijaalu xamoo ni alal ju licite waxuma licite ci étatiquement boobu on n'en disconvient pas mais religieusement alal ju licite ñetti étape la moo doo ñu ko wax fi ahdil amin ma asluhu wa aslu aslihi yabin la woon jamono yonent bi dangay xam lisi ni mu liside ci waaju la ko jox ak kooka fa mu ko jëlee kooka fa mu ko jëlee bi ñu demee ba ëhdu yonent bi jeex ñu ni kon del xam ki la ko jox ni mu liside door a àgg ci moom bi ñu demee ba jamono ji àgg léegi mu ni bul yëg fenn illicité ci ki la koy jox yow xool ndax licite na am déet sa yoon nekku ci mais bu ci gis illicité te nag lu état organisé def ko liggéey nit ñi di ci daan seen doole mu ci jëfandikoo moom état bi li ci faj njabootam di leen ci defar ay tali di ci defar ay école mais buñ ci indi leen daara wàllam nga ne danga koy rejeté xamuloo yal na yàlla fay leen yiw yal na ko yàlla gise ni ku fekk daara ju soxla woo ku ko jàppale te yàlla kese tax la ngeen ñëw jàppale ko jazakumullahu xayran ahmed yal na yàlla fay leen yow soxna si yàlla na yàlla jàppale la kontaan naa loolu ci liggéeyin bi dama ko wax papke bi mu ne waa moom bis bu jot damay woo bu déparé mu ne mu ngi ñëw mu ni waaw kooku moom ni mu amee assiduité ci liggéeyam bi mu ne ma sunu gaa yëpp noonu la ñu mel yal na yàlla fay leen yow ah Babacar nag Babacar bàyyil ma sama Babacar dafa ñëw démb mook Mouhamed ma leen waaw man Cheikh Tidiane Wade Mouhamed indil ma lu may dimbalee ànd ak Abou Bakrin jóge ci Ahmed Ahmed yónni Abou Bakrin ak Mouhamed ñu ñëw indil ma luñ ma jàppalee ci sama daara ji di mus dajar xikmatun baaliga bu ma ko nanguwulee ñàkk fulla dama koy nangu sollicité ci ñoom yeneen aide mooy ni dinaa fexe ba bu ñu demee pose première pierre bi mu yëgal la ni le mu ngi nii ñi ko posé ñu ngi nii amuñu dara seen volonté donc moo tax ñu posé ko ma ni leen waxaguma ko nag sama benn kilifa te ku ma xam xam ni akama bari kilifa waaye waxaguma ko sama benn kilifa dama leen ni yéen a ko sosu lu ma leen mën a jàppale man ci sama bopp dinaa leen ko jàppale bu ngeen ko àggalee nag ba muy tiitir dinaa woo kilifa yépp ni leen yéen a ko sosoon jàpp ko ba mu àgg wax kilifa yi ñu ñaanal leen wafaqana allahu wa iyaakum ala taatihi bi ñu ngi jaajëfal waa warang yépp di jaajëfal waa contrée bi yépp di jaajëfal waa mbuur yépp cofeel gi ñu am ci daare ji ba yéen it ngeen ñëw tey bokk kook ñun la ca yiw yal nañ ko yàlla fay bi jaahi rasuli sallallahu alayhi yàlla jàppale leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa Euh, au terminal ci biir. bismillah la sunnati rasul yàlla yàlla barkeel. Ah, moom daal mu ngi nii espace bi yëpp ci ginnaaw. Voilà. On va. benn bi video la yal na yàlla barkeel yal na yàlla ayca dèjà waaw mu